arbitre baa ngi wax ak ñaari mbéy Ngalla Dérange ngaa la déranger. imposé à gauche ngaa la déranger à droite. arbitre bi sifflé na mbokk yi ñoo ngi ci combat spécial bi. Diouné Petit Production. ngaa la déranger ak imposé. imposé tey dina imposé. waaw déet. ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar wàcc nañu. Ngalla déranger ngi dox ci kawam imposé cokaas na léegi Ngalla door na Ngalla ga na tànk ba da koy wala lu def daan oh jugaat nañu Ngalla déranger ak imposé dekk na téere ba sànni sëriñ boobu am na lay Ngalla déranger ak imposé Ngalla déranger imposé yaa ngi bëre biit na ko léegi mu bañ Ngalla imposé imposé mun ko bëgg a imposé doole wala mun ko bëgg a def imposé Ngalla dérangé xale yaa ngay bëree Ngalla dérangé ak imposé Ngalla dérangé imposé Ngalla dérangé ak imposé Ngalla dérangé imposé Ngalla nga ko bëgg a zongale léegi waaye ak Ngalla Ngalla da ko da ko zongale waa bañ dugg na léegi da koy mbot na ko waaw waaw imposé imposé na Ngalla déranger daan na ko jël bu mbot ko waaw imposé imposé na Ngalla déranger daan na ko jël bu waaw ba làmb gi noonu kaa dem Ngalla déranger imposé xool oh, ma mbooloo ma mandi imposé